président tey ñu bëgg waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy le budget parce que tey jii vraiment contexte bi nga xam ne moom la moom la nekk mais tey jii yàgg nañu wax li nga xam moom mooy transparence budgétaire yàgg nañu wax li nga xam mooy budget inclusif mais pourquoi actuellement plus que jamais tey jii dañoo war a waxtaanee li ni mel. waaw damay am euh, damay sawar lool tontu la ci laaj googu. Mm-hmm. ndax Sénégal dafa toll foo xam ne dañu am changement de paradigme. Mm-hmm. bu ñu gisee at yi ñuy génn yi bëri woon na lool ci wàllum politique mais bu ñu gisee coow yi li ko lal yëpp. wàllum transparence la mhm. euh, jub jubal sellal euh, rafetal yorinu réew mi mhm. euh, loolu nag dafa am solo ndax balaa ñuy ñëw ci budget bi nga xamante ne mooy li ñuy waxtaanee mhm. réew boo koy jàngat da ngay jàngat évolution démocratie tolloon na foo xamante ne wàllum élection rek lañ doon waxtaanee lu jëm ci processus électoral lu jëm ci représentant des candidats lu jëm ci Euh, ban candidat moo war a bokk ak ban candidat warul bokk. naam loolu am na solo. Mhm. waaye li nga xamante ni moo gën a am solo ci démocratie ndax dañ naan l'argent public est au cœur de l'état de droit et de la démocratie. Mhm. maanaam li nga xamante ne moo sas euh, moo su mooy li nga xamante ne moo moo moo tax état jóg li nga xamante ne moo mooy mooy solos état. Mhm. mooy li nga xamante ne ñun soxla nañ ko en tant que citoyen mu mun ko doxal. te loolu pour mu mën ko doxal. dafa soxla ay koppar yoo xamante ne ñoo ko may mu doxal ko. Mhm. koppar yooyu nag li ci gën a bëri mu ngi bàyyi ko ci citoyen yi. dëgg la muy wàllum lempo. Mhm. waaye am na loo xam ne tamit dañ koy àbb te bu ëllëgee impo lañ koy fayee waaye lempo loolu itam loolu lempo loolu itam bu ko amee ba noppi dañuy xool saytu fan lañ ko war a dugal. Mhm. ndaw ñi la question de l'agriculture. Euh, wàññi dund gi. loolu yëpp dafa loo xam ni euh, citoyen da ci da ci da ci am place bu am solo bu mu ciy joué. Mhm. moo tax tey bu ñuy wax la question de la demande sociale. Mhm. demande sociale boobu li ci gën a bëri yaa ngi koy gis ci transparence lay nekk. Mhm. ci wàññi dund gi lay nekk. ci réduction du coût de la vie ci emploi de jeune lay nekk ndax nit ñi dañuy yeewu ak xarale yu bees yi. xam nañ léegi li nga xamante ne mooy seen àq ak seen yelleef ci démocratie bi ñuy laaj nag état mu koy doxal.